وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر لرب ba

rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. di jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko. di nuyu tamit sëriñ bu so mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi ñuy defal sëriñ bi ci jumaa ji. di nuyu it kilifa yi nga xam ne ñoom nga àndal. di sunu mag sëriñ Bousso ak ñi nga àndal ñëpp di am mbégte lool ngir dalal la fii ci liggéey bii nga xam ne mu Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def ci ndigalul sëriñ bi ci jumaa ji ak bànqaas yi nga xam ne sëriñ bànku ci liggéeyloo liggéey bi nag màggal gi def cee ëpp doole ngir ni ñu ko sëriñ bi digale ak ni ñu ko gënee bàyyi xel ci biir loolu nag ngir balañ laa wax liggéey yi ñu def dañ lay leeral mbooloo yi nga xam ne ñoo muxaddimatul xidma ñooy ànd liggéey bi daayira muxaddimatul xidma dafa am ay silil yu aju ci moom yoo xam ne ñoo ñoom ñooy ànd liggéey bi ñuy bëgg lim ne ñu ngi koy def silil yi aju ci muxaddimatul xidma muy muxaddimatul xidma Louga ak muxaddimatul xidma bu cees ak muxaddamatul xidma Dakar ak biir Touba gi ay koñ yu bëree bëri yoo xam ne ay mboolooy jigéen ñi ngi fay bàyyikoo di ñëw ngir di seetal si barab bi ak taxaw ci liggéey bi di góor ak ay jigéen di mbooloo mu takkoo takk daayira ilhaamu latiful xabiir bu Touba Ngoy kenn ku nekk xam ne tamit ñoomit it seenu ànd ak daayira muxaddamatul xidma ak jàmbaare guñ jàmbaare niki noonu xidmatu rawdu muy xidmatu rawdu Cheikhul Xadim di mbooloo mu takk moom it di jóge ci gox yu wuute ñooy ànd liggéey bi daayira wakkaana xaqan moom it dañu ànd liggéey bi ak fathul xafaar ak daayira istixaama sécurité xidmatul xadim SFOR muy effort yi nga xam ne ñooy saytu tàndarma yi Lamp Fall sécurité euh, ak lu mel ne xidmatul xadim bi nga xam ne ñooy bale li wër jumaa ji par guddi guddik alxamis ñoom tamit dañuy ànd liggéey bi euh, ak xidmatu masalikul jinaan tamit ak euh, istixaama sécurité ak euh, sapeur pompier yi ak police ak croix rouge ñooñu ñëpp mbooloo mu takku lañ moo xam ne dañuy ànd liggéey bi ci biir loolu nag daayira Muxaddamatul Xidma mobilisé na lu ëpp junniy nit junniy nit ñoo xam ne ci biir màggal gi yëpp muy mbooloo mi gis ñu toog muy ay góor ak ay jigéen lii seen liggéey ni ñu ko sëriñ bi digalee saa su nekk bu dul màggal dañ cay nekk muy di di di taxaw ci entretien bi entretien bi ñu ngi ko tàmbali woon laata màggal gi di teru biir jumaa ji ak kaw gi ak biir gi yëpp ci lépp loo xam ne lu fi yàqu la defar nañ ko lépp loo xam ne lu fi mat defar defar nañ lépp luy niiru lu taq ndax fii barab bi amul lu taq waaye lu fiy niiru lu taq lu nekk rek dindi nañ ko moo xam lënd moo xam poussière ak lu man a doon noonu tamit lañuy taxawee ci wàllu setal gi ci mbale mi li muy penc mi ak biir jumaa ji ak li ko wër ànd ci ak euh, waa UCC jumtuwaay yi sax euh, muy jàmbaar lañ lool indi nañ ay poubelle waaye poubelle yi gënoon a bari sax biir màggal gi yëpp duñ fi gis mbalit waaye ni mu amee équipe yi jubbanti sàppe yi ak a taxawu rang yi ak a aay li ñu aay ci penc bi ni la amee équipe boo xam ne seetal rek la ñuy def saa su nekk li nga xam ne tamit moo moom la sëriñ bi santaane ci barab yi ci des muy lu mel ne armeel yi ak bàq ya yooyu yëpp la fa la fa war a am ci wàll yëpp ma ngi fay am lu aju ci taxawaay bi tamit ci biir mbas mi ni ñu ko sëriñ bi digale woon daaw ak cant gi nga xam ne seereel nga ñu ko ci niñ ci taxawee noonu tamit moo taxoon renit ñu taxawe ci bëggoon koo def nu gën a raw mooy bunt booy gis ci biir biir jumaa ji dañ fay teg bërigo bu am euh, sel ak eau de di jox nit ñi bala ñoo dugg ñuy laal sel di leen séddale ay masque am na ay daayira bi jënd na ay mbooloo yu fi indi ay masque séddale nañ daanaka lu ëpp téeméeri junniy masque ci biir jumaa ji noonu la ñuy désinfecté tamit ci biir jumaa ji saa su nekk suba ak ngoon dañ koy def teewul yeneen liggéey yi nga xam ne daayira bi mi ngi ko ŋànk mu aju ci comité bi muy accueil et versement chauffeur lycée ak organisation cérémonie officielle muy nekk gi nekk ci biir commission organisation ci biir comité bi nga xam ne yaa jiite liggéey bi moo xam résidence bi moo xam Daaru Marnaan yebal nañ fa ay mbooloo yu dul jeex yoo xam ne liggéey bañ fay def yaakaar naa gis nga ko seere nga ko jërul ñu ci ñu ciy si noon tamit nañ doon waajale jumaa ji ci liggéey yu aju ci wàllu communication ak culture am ay waxtaani diine yoo xam ne mat na juróom-benn am ci bu mag boo xam ne sax ñu ne comité d'organisation bi ñoo koy ànd nga amoon ngante yabaloon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mu teewal la fi ci biir màggal gi it noonu lay amee ay panel yuy continuer ak ay génne tamit euh, ay euh, brésil yoo xam ne dafay tënk histoire jumaa ji ci français ak arabe ak anglais ngir gan ñi nga xam ne dañuy ay étranger wala ñuy ay ay ay tubaab yoo xam ne dañuy bëgg a gëstu sëriñ bi suñ ñëwee ñu mën leen koo jox loolu it ci liggéey bi la bokk. liggéeyu communication it bàyyiwuñ wuñ yi ak rajo yeeg yooyu ñuy def lu leen neex rek dafa am ay bats booy am boo xam ne soo ñëwee da nga am direction booy jàll ñu boole la ak nit ñu xool li ngay jël lu mu doon ak li ngay film ñu xam ko ngir moytu yi nga xam ne sëriñ bi daf koy tere ñu ñu ñu ñu film ko muy jaxasoo bi ak ci aju. yooyu yëpp daal boo ko dee xool euh, liggéey bu baree bëri la boo xam ne ni ma la ko waxee léegi lu mu ëpp junniy nit ñi ngi ci doon liggéey waaye yooyu ñëpp it ñu ngi bàyyi ko ci biir daayira Muxaddamatul Xidma ak cellules yi nga xam ne tudd naa leen léegi di mbooloo yu pësteef yu yu takk yoo xam ne liggéeyal sëriñ bi rek moo leen ñor di ay soldaar yu sëriñ Tuuba loolu nag sëriñ bi mooy liggéey bi nga xam ne tey jii euh, moom lañ doon def ci màggal gi ak bu dul màggal liggéey bi day continuer ndax amul wàcc saa su nekk Euh, ni ki noonu tamit ci biir liggéey bi dafa am pàcc bu ci am solo rawatina ren muy euh, fajukaay bii ci biir jumaa ji fajukaay bii ci biir jumaa ji nga xam ne lu mat ay téeméeri téeméeri nit ñoo fiy fajoo ci biir màggal gi docteur yi wax dëgg yàlla docteur Ndeye Maguette mi jiite faj mi boole nañoo ay docteur ak ñoom ñi nga xam ne ñooy ànd liggéey bi ñu mel ne ñoom Abdoul Ahad Faye ak pharmacie yi ñuy taxaw ci liggéey bi waaye tamit Euh, am na tamit professeur Daouda yi nga xam ne ku jàmbaare la indi na fi matériel bu dul jeex tey jii nga xam ne daanaka première faj mi ñuy faj ci jumaa ji rek du jar sax daanaka ñu ci bëri bu bu amul ak gut fenn fi duñu leen évacuer wax dëgg yàlla taxawaay bu bu am am solo la loolu lépp liggéey la boo xam ne ñun ay ay soldaari sëriñ bi lañ sëriñ bi nga xam ne mooy mu Cheikh Mamadou Mountakha mi fi nekkal ki ñuy liggéeyal te moom rek la ñu sàkku ngërëmam moom lañ la koy seereel yow mi nga xam ne yaay ndawam yor kàddoom yor léppam di jëwrinam kon daal loolu lañ ne woon danañ ko leeral ci liggéey bi danañ ko leeral ci liggéey bi euh, ngir wax la ko loolu it su mënee am wax dëgg yàlla ay moyens yu bëree bari la laaj ak ay jumtuwaay ci ñun ci suñ biir lañ tàmbalee sas yi ñuy sasu di ko topp bi ci biir màggal gi ak lu dul màggal waaye diaspora bi tamit dëkk yi bu mel ne Euh, Espagne ak li ko wër sëriñ Assane Diop mi ngi fi di ko coordonné wax dëgg dañ ciy taxaw di yónnee lu aju ci ay matériel ak ay kii ci biir loolu yit ñu ngi lancé appel moquette yu bees yi ñu jënd kenn ku nekk xam ne ne jumaa ji soxla na ay machines yu bees ak ay matériel yoo xam ne daf koy setal kon bépp taalibe buy dégg mu xam ne loolu it jumaa ji soxla na ko ñu ngi koy ñu ngi koy leeral ci kanam sëriñ bi mu muxadimatul xidma bu fondation muxadimatul xidma bu Amérique tamit di ñu jàmbaare ci njiitul sëriñ Cheikh John ak sëriñ Amsatoulam loolu it bu sëriñ bi teewee du ca du ñàkk ñu wax leen seen seenub liggéey. ñu mi ngi tàbbi ci liggéey bi di am njariñ sëriñ bi noonu lañu soxlaa ay camion ndax ñunkat kat li ñuy def mooy lu ñu am ci suñ kees lañuy ñuy tàmbalee di di ko saafara suñu amut dañuy dañu koy wax rek léeg-léeg benn taalibe bu ko déggee ñëw indi saafara ko noonu nga fi gisee jumtuwaay yi fi am yëpp kon ay camions yi mbalit yoo xam ne ci penc mi dañ koy soxla ngir mbalit mi bëri na te bëgg nañ saa su nekk ñuy bale euh, di ko an muy dem ca fañ ko war a sotti bëgguñ daal dañu bëgg 24 sur 24 saa su nekk daal suñu sañoon jumaa ji duñ fi gis suuf duñ fi gis këyit duñ fi gis menn mbalit te loolu jumtuwaay la laaj yoo xam ne moo koy moo koy moo koy def kon loolu lépp it dañ koy wax ngir suñu bokki taalibe yi nga xam ne fii rek la ñuy wër fii rek lañ bëgg bëgguñ feneen suñ ko déggee danañ dana saafarawu kon loolu moo doonoon kàddu yi nga xam ne danañ ko jiital ngir leelalal liggéey bi euh, euh, bu ñu noppee ñu jox la ñu jox kàddu gi sëriñ Afiye bu sa mi nga xam ne mooy suñu jëwrin di jëwrini liggéey bi mu nuyoo nuyoole la mbooloo mi suñ noppee nga jël kàddu euh, ñaanal ñu ñaanal ñu xéewal ak tawféex akuk mucc akuk wér dañ bokk ko ànd ànd kook Cheikh Amadou Mountakha ba ñun ñii ñëpp li ñu yéene liggéeyal sëriñ bi ñu ñu ñu am lu kawe njortu li nga xam ne moom la ñuy def kon sëriñ bisimilah. ngeen yéenee liggéey islam ngeen koy liggéey sëriñ bi ngeen am ci lu koy seen ñoom ñoom bi suuf euh, li ñu wax nag amu ci xanaa ñu ko suñu ab daal wax la ne kon mbooloo moo ñu ànd ak xidma loolu liggéey liggéey boobu ñoom nag ay taalibe lañu taalibe nag ni Cheikh Abdou Fall waxoon moo ci nekk ñoo fi indi seen bopp li fi bàyyi ñoo ko fi wax kon buñ joxee gor liggéey ba dee rek mooy lu war kon ñoom seen war ga lañ nekk euh, daana wax ne jébbul yomb na waaye murit goro koy doon lu mett mett nga xam ne yaa ko kon ñii doo leen fi indi ay gor lañ ñoo xam ne teel seen baat Cheikhul Khadim fas yéene te nekk ba dee yàlla dogal nag ñoom ay jiw ñu ko mat ndax ku Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ci sa kanam Cheikh Bachir nekk ci kanamoom seen guddi seen bëccëg seen suba seen ngoor lépp njox ko si di ko liggéeyal boo doon xoolee yow mi nga xam ne dangaa ñàkk ko si da liggéey ba dee ba da nga liggéey ba dee kon ñoom. liñ lay ñaan ñaan rek nga ñaan leen ñu am wér xol yi moom nangu na dara de si ñu am wér am kàttan te liñ mën dul seen bopp muy aajo yi àddina yi ak sëñ bi fee di leen nu mu gën a gaawee ndax ku nekk it nga bàyyi di ngay ñëw itte jooju na daa defal faju ci barkeb sëriñ bi loolu daal sëñ bi mooy kàddu gi ay nit lañ yoo xam ne jërëjëf doy na ci ndax kenn woowu leen fi fi indi seen bopp leen fi bàyyi ñoo ko fi wax te ay góor lañ fas yéene doon kon dañuy liggéey benn benn lañ ci rek kon daal lañ li ma ci sas yow mooy ñaanale rek ñu mucc te wér te am àjj fa jóg ngir mucc ak borom Tuubaa amul lu ñu leen di wax ñoom kon. kàddu yi dañ koy jébbal Cheikh Amadou Bassir balaa loolu ñuy sant soxna Bali Muntaxa Sëñ Abdou Lahad mi yor social yor wàllu ndimbal yi mi ngi koy ceereel ak sant ci bernde yu bari yu muy indi fii ak ay jumtuwaay ak ay matériel yoo xam ne daf ñuy daf ñu koy jàppale ci liggéey bi kon ñu jébbal kàddu gi sëriñ bi Cheikh Amadou Bassir mu yëkkati kàddu ci turu Cheikh Amadou Muntaxa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jullit yi bokki taalibe yi waa daaira muqaddamatul xidma ñi ngi yëkkat suñu kàddu ci ndigalul Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér mu kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak i ngërëm jëmee ko ci mboolem waa daaira muqaddamatul xidma yëpp ci njiital nag al imaam sëriñ Afia Bousso ak mboolem ñi mu seq liggéey bi yëpp tam topp ci ginnaawam sëriñ bi nee na mi ngi yëkkatu kàddu yi cant ak i ngërëm ak kàddu yi kañ ak bàkk leen ci seen liggéey bu rafet bii ni ko Serigne Abdoul Ahad Bousso limelee ku ko dégg dana dolli li sëriñ bi di wax dana dolli sama yaakaar dana dolli sama yaqin waaye ku dégg ni mu ko limee xam ne ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg ngeen kon sëriñ Afe sëriñ bi mu ngi teg nuyoo bi ci sa loxo ak cant gi nga jàllal ko ci mboolem taalib yi yëpp kàddu yi nga wax itam dégg nañ ko mooy ku fi ñëw rek yaa fi indi sa bopp te la la fi bàyyi yaa ko fi wax. te fas yéene doon ay góor mooy la sëñ Mbàkke bu soo waxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ diggee suñu boroom kon lu ñu wax dañ ko war a gëm kon suñu affaire ñu ngi leen di sant yaa mbooleem ñu ngi ko seqal ñëpp nag ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci liggéey bu sell bu rafet bii nga xam ne jagleeg suñu boroom la waaye jagleeg. mber mu leen sëriñ beral la ndax fu ñuy liggéeyale sëriñ Tuubaa kat fii mooy dàtt bi fii mooy xol bi fii mooy moteur bi kon nag bu leen suñu borom dimbalee defal leen tawféex pàgguteefu suñu borom la waaye bëgg-bëggu sëriñ la ndax jumaa ji moom fu nit mën na faa jëf waaye am alal taxu fee mën a jëf bëgg fee jëfit taxu fee mën a jëf ndax lu fiy dugg lu sell lay doon lu fiy dugg lu ne Sëñ lu muy nongu lay doon moo tax ñëpp mënuñ am tawfeex mën fay jëf kon nag ñi ngi soññ waa daayira bi ndax yéen kat ni ma ko daa waxe da ngeen a laxasaayu jaay seenu bokk jaay seen lépp di liggéey Sëñ te liggéey bii mi ngi bëgg yàgg kon wóor na leen wóor na Sëñ Tuubaa na ko ndax fu nekkat des na fa d'accord sëñ bi waaye fii moom kenn du fi am ren ba déwén te neexut sëñ bi mm-hmm. kon ay jàmbaar dëgg ngeen te li li gën a yéeme ci yéen nag seenub liggéey yéeneen ko def nangeen ko war a defee te raxu leen ko jaru leen ko boolewu leen ci loolu ci bokkut tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi tàmbalee ci ki fi nekk sëriñ sëriñ Tuubaa yem ci moom lépp lu ngeen di def itam lu metti metti la Serigne Touba waxoon ak Cheikh Ibrahima Faty ca kam ko boole loon am ñag day jeg day gën a ñagas la muy ñag léeg-léeg ngeen dégg lu métti te ndigalu suñ bi ko teg te du ngeen mën a onk du ngeen mën a jàmbat du ngeen mën a génn ci biti di wax kon nag loolu lépp nag na ngeen xam ne seen bopp ngeen koy defal kii ngeen kii ñu seqal liggéey bi tam ne ci ginnaaw it mi ngi ci teg bëtam mu ngi leen di gis ndax waxoon na ko ba sama liggéey ba àggee ma leen di gis te du ngeen ma gis fa kon yéen ñi fi doon jëf yëpp ak daayira yi ànd ak yéen ci liggéey bi ñëpp nañ sant yàlla te am ne xam ne ko doon màggal si te dàkkee fii Sëñ Tuubaa sa bëgg sa na la wóor ne jam nga kon nag yàlla ngeen ko yàgg def te suñ boroom faj aaju yëpp lii Sëñ Abdul wax itam yitte ju rëy la ndax yéen guddi bëccëg yéen a ngi sensé lamp yéen a ngi fóot yéen a ngi rafetal yéen a lu ne yéen a ngi koy def bëggu leen laaj sëñ bi dara sax donte siñ bi bëgg ko waaye nungu leen koo laaj lu ne rek yéen a koy jéemal seen bopp ngir xam ne ni mu waree ñëpp ne leen waree yéen a ngi ciy góorgóorlu sëñ Tuubaa leen ci defe ndam waaye kon nag ñun taalibe yëpp nag nañ nañ nañ ci gore te am ci pëstéef am ci dogu ci sa yitte ji.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 seen taxawaay rafet na lool lii ñuy def ci jumaa ji doy na sëkkub liggéey dara dara munu muru wuru ci woon mën a ànd wuruñ ci woon a mën a boole dara yemuñ ci it ne ko sëñ bi daal di waxee ñaari kër Sëñ Tuubaa yi ñoo leen fa wuutu wuutuñu fa wuutu fa Cheikh Mouhamadou Mountakha ci ñi nga xam ne suñu lay diine lañ di suñuy bokk këri diine yi te ñoom ci seen jëm bopp ñooy wëlbatu ko di leen sant fu ñu di wax seen taxawaay di wax seen yitte di wax seenu nemm ko di wax seen yitte loolu nag ni ma ko waxee rek xam nañ ni seen bopp lañ ko defal kon nag ñi ngi leen di ñaanal ñoom itam liggéey bii ñu yàgg ànd ak ñoom te lépp di rafet waxtu ne muy gaa rafet ndax sellal lañ koy defee ak pëstéef ak ngëm-ngëm yàlla na Sëñ gàttandu leen ci yàlla na leen ci dimbale defe leen ci tawfeex barkeel ko te mbooleem liñ bëgg lépp nag yàlla suñ borom jàppandal ko képp koo xam ne ànd na ko yéen itam yàlla na Sëriñ Tuubaa faj ajoom hmm. te dana am sax ndax moo ko jige woon hmm. waq di xawaayi jënd si ne daa fii xidmati yi wahab lahu maaraama te baatu xidmati duggaat na ci biir hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñaan gi nag jox naa ndigal sëriñ Afe Buso na sànni ay ñaan ñun ñëpp ñu fas ci liggéey bi ñu doon liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu kon na ñëpp tàllal ku yor bidon it mën nga koo ubbi te fas na ñëpp tàllal amin amin na ñëpp tàllal te fas amin amin الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر